الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi rek xalifatu am li tayfatul muridiya di sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mamadou Bachir ñoo ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram ba mu dund yeggale yéenam ci sëriñ bi moom njabootu Cheikhul Xadim gi yëpp ak taalibe yëpp suñu borom nangul ñu liggéey bi rek am fi aw tiis wu dal ci sunu kaw ñu jiital li alquran wax rek inna muy bokum mbokkum julit suñ tali talibé di jambar lol ci liggéey bi ñu koy wax serigne Modou Assane euh suñ borom daal di ko kub dogalam ci mom tay ji wax deug radio Xassida online nak ci jambaram gi nga xamné ne ko liggéey bi pas-pas bi nga ko jox ak yene ji ko jox kon melna ni nun do ñak lol nak ñong koy ñëgal mbokki julit yépp mbokki talibé yépp di sakku ci ñom ñaan ñu baaxe ñu dimbalé ñu jappalé ñu ñaanal ko man boo defee fatiha dek ci ñeen fukki lixlaas tëjee ko salaatu ala nabi ak xaysit ak jawartu wala xaysit gu waay man rek nga jàppale ñu ci defal ko ci ñaan sëriñ Modou Hassan Ndiaye moom rajo xasid online féetewul ñoo ñëw fële ca Touba moom la suñ borom dikk ci moom ab dogalam kon ñoo ngi koy jaale ay mbokkam wax dëgg di ko jaale auditeurs yëpp. ndax kenn ku ne min nga batam ci rajo bi ñong koy jàlli ñep di jël njaal mi di ko ci loxol serigne suñu jëwriñ rek sëriñ mahamadan bakke ak serigne ibrahima khalil ñu jallel ñuko ci ñi nga xam rek ñom la àndal liggey bi yep kon wasalaamaaleykum warahmatullahi wa barakatuh alladina ida asabatuhum musibatun qalu qalu قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون